asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi donc ñoo ngi ñëwaat ak ci beneen numéro ci les chroniques de Guelwaar donc ñëwoon nañ fi taaye waxoon nañ fi ba nañ fi benn chronique benn jàngat tey ñu ñuy ñëwaat benn affaire boo xamante ni waxoon nañ ci mais comme la répétition yi est pédagogique on risque de nous répéter ñëw ci benn loo xamante ni am na solo trop ah, parce que récemment gis nañ ñu bëri ñoo xamante ni. kat ñu ngi ciy wax donc rawatina ñi nga xamante ni ci nguur gi la ñu xam leen ci nguur gi ñu ñëw wax loo xamante ni dëppoo na ak li ñu yaakaaroon xam nga nag dafa am loo xamante ni je pense philosophe bi dafa am lu mu wax nee na l'histoire se répète toujours deux fois en première sous forme de tragédie mais quand elle se répète elle devient comédie donc euh, xam nga lii c'est la énième fois donc du lu bees loo xamante ni sénégalais yi ñoo koy door xam ma wax leen ñu def ci benn jàngat bu mooy lan affaire de troisième mandat affaire de troisième mandat dama bëgg ñu xool le le parallélisme des formes entre Abdoulaye Wade ak Macky sur le troisième mandat xam nga le troisième mandat le troisième mandat ou bien la la troisième candidature donc muy loo xamante ni. Macky Sall Abdou Diouf Abdoulaye Abdoulaye Wade bi ñu ko falee en 2007 2007 dafa dafa am lu mu wax dafa ne je pourrais plus me présenter j'ai verrouillé la constitution ce sont ces mots j'ai verrouillé la constitution c'est moi-même qui ai verrouillé la constitution mënatuma bokk mënatuma doon candidat ba mu demee ba nga xamante ni comme nguur dafa neex mu dem benn moment boo xamante ni yaakaaroon na dina doyal mu ñëw ba benn moment mu gis na kat moom doyalul te kat li mu digge woon mooy waaji jeex mu ne mësuma wax ne mankat kat dootuma du mëntuma nekk candidat mësuma ko wax ku ko gis na ko génnee ku ko gis na ko génnee mu ne léegi sax gars yi bu leen ne ñoom ñoo ko wax ñu insisté bu ñu insisté ne leen ma waxoon waxet ma waxoon waxeet moo wax leen le parallélisme de formes entre Abdoulaye Wade ak mak Sall Abdoulaye Wade mak Sall dafa moom it dafa yaakaaroon xam nga nguur booy door a ñëw buñ la nee mën nga fay def dix ans wala quatorze ans da ngay ne non lii moom bëri na trop bëri na trop dinaa mën a bàyyi dem noppalu ko ci. mais le pouvoir absolu coron absolument gis nga nguur boo ci nekkee séddoo ko kenn yow rek nga ci nekk dangay ngay dem ba nguur gi ci boppam moo lay corrompre say li nga këmoon li nga yaakaaroon ne dina nekk sa xalaat lépp nguur da lay corrompre moo tax dafa am ñoo xamante ni nee nañ dañuy xeex li limitation des mandats mandat illimix nee nañ dañu bëgg mandat illimix xam nga danger bi mandat illimix am mooy nit ki gis nga dangay ngay yàgg ci nguur da ngay dem ba yow vision bi nga amoon doo ko amati ñi la jege woon dootuñu la jegati xel bi nga amoon pour defar dootoo ko amati li nga xamante ni sax yow mooy lan sa jikko ju rafet wala sa xalaat bu rafet bi nga amoon pour defal ko sa askan ba ngay dem ba yow le pouvoir te korom ba li nga xamante ni li nga bëggoon dootoo ko mënati dooto ko defati. ñu gis ñaar ñoo xam ne dañu dañu dañu jog nekkat di lewal lii di troisième mandat bu Macky Sall kiñ ci njëkkee gis muy doon ñaar ñoo xamante ni nag dinaa leen wax lan la ñuy représenté ci parti bi c'est des gens yoo xamante ni loolu mooy mooy les cartes à jouer au dernier moment ñi nga xam ne dañuy carte carte bi nga xamante ni dafa am doole moom la ñu joué au dernier moment seen carte yooyu moom la ñuy wax moo wax leen pourquoi Boun Abdallah Dionne ak Mbaye Ndiaye doon leur dernière carte parce que c' est des gens yoo xam ne c' est des ballons yoo xamante ni dañ ko lancé pour xool naka la ko askan wi di jële parce que suñu ñëwee rek wax ko at askan wi askan wi préparé wu ji dinañ nekkat bi day difficile pour askan wi wad na boobu noonu garab googu noonu léegi comme garab bi dafa weex dañuy fexe nuñ ko koy dofee ndànk-ndànk am na ñeneen ñu ñëwoon léegi nag ñaar ni mooy carte yi nga xam ne moom la ñuy mujjee joué muy Boun Abdallah Dionne ak mbay Ndiaye maire Parcelles Ndiaye xaw ma may Mbaye ma jooy donc mu doon loo xamante ni gis nga Boun Abdallah Dionne ñi nga xam ne am nañu xalaat Boun Abdallah Dionne yii Macky Sall saa buy def yi Boun Abdallah Dionne foog mu dugal ci foog mu wax loo parce que Boun Abdallah Dionne dafa kam ka xamante ni kanam gi kanam gi dafa lewet léegi kanam gi la gis nga ma raconter leen benn histoire boo xamante ni ça s'est passé aux États-Unis gis nga aux États-Unis George Bush bi mu bëggee gëmloo américains yi que ne dafa war a attaquer Irak moom dafa bëggoon a attaquer Irak pour pétrole bi mu xam ne bu leen waxee loolu américains yi kat lu ñu bëgg-bëgg xaalis li duñ ko nangu parce que seen opinion publique dafa dafa am doole xam nga lu mu wax daf leen ne Saddam Hussein détient des armes de destruction massive maanaam ay arme la yor boo xamante ni mën na nasaxal àdduna foog ñu lijjanti ko wala lu ko may àdduna bi yëpp dina ko yëg moom su ko waxee askan wi moom moo waroon ñëw défendre idée boobu noonu mais su ko waxee askan askan wi duñ ko gëm devant le Sénat bu ko waxee askan euh, Sénat bi du ko gëm xam nga lan la ñu def dañoo dem jëli Colin Powell Colin Powell mooy Boun Abdallah Dionne bu Macky Sall Boun ab Colin mooy Boun Abdallah Dionne bu George Bush dafa doon koo xamante ni. su waxee dara rek nit ñi ñu gën a bëri dañ koy jëm te lu mu wax la plupart du temps boo demee da nga koy gis ñu dem jëli Colin Powell Colin Powell défendre idée wu maanaam kat Irak Saddam Hussein détient des armes de destruction massive bi nga xamante ni ñoom attaqué nañ Irak yàq di dëkk ba rey Saddam Hussein dañu dem ba ci biir ñu ne kat li ñu waxoon kat nekkate amul Irak amul benn arme de destruction massive loolu Colin Powell boobu noonu pour pour askan wi mën koo gëm il fallait ko mu am kenn koo xamante ni maanaam kanam gi sérieux na maanaam amul ambition politique ñu wax loo ko yenn wax yi pour askan wi mën koo gëm c'est ce qui s'est passé Boun Abdallah Dionne ñëpp xam nañ ne pourquoi Macky Sall Boun Abdallah Dionne rek la jël mooy koo koy xaritam nag kooku mooy xaritu Boun Abdallah mooy xaritu Macky Sall parce que amul benn ambition amul benn ambition moom moom nañuy wax base politique am ak moom amul benn ambition bëggul dara dara dara dara dara léegi moom daal Macky Sall lu ko wax rek mu wax lu mu ko def loo mu benn pantin la boo xamante ni. à la solde de Macky sàll koo xam ne lu ko Macky Sall wax la wax ma fàttali leen ne Boun Abdallah Dionne bii moo fi ne woon parrainage dinañ ci dem il faut que dinañ dem ci parrainage ba ñu demee ci parenage Boun Abdallah Dionne bii moo ne candidat yi du ñu dépassé cinq candidats ñu gis ko Boun Abdallah Dionne bii moo fi waxaade woon bi élection yi génnee comme gisaanekat wala salbe ndoom ci ngoon gi rek mu ne am nañ cinquante huit pour cent cinquante huit pour cent ñëpp gis nañ ne après cinquante huit pour cent fa lañ nekk si quelqu'un boo xamante ni lu ñu manigancé ba war ko gëmloo askan wi rek Boun Abdallah jonn mooy ñëw gëmloo leen ko Boun Abdallah jonn mooy ñëw pour gëmloo ko mooy dernier rempart léegi moom la ak Mbaye Ndiaye mbay Ndiaye bu Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye bu Parcelles Assainies léegi Mbaye Ndiaye kii mooy ki nga xam ne ma fi waxoon ci Khalifa Sall ne Khalifa Sall mbay bêtise moo ne Khalifa Sall bu bëggee téye mairie bi na ñëw APR bu téyewul APR bu ñëwul APR dinañ ko taqal dinañ ko tëj Mbaye Ndiaye moo ko wax wax jooju dinañ leen ko dégg dinañ leen ko dégtal nii dinañ leen ko dégtal mu ne ñeneen yenn maire yi nga xamante ni kat dañoo nguur dañoo àndoon mën nañoo def lu leen neex kenn du leen kenn du leen ko jàppee waaye Macky Sall lu tax parce que en général ñi daan yoole mairie Dakar ñoom ak pouvoir ñoo daan ànd di liggéey ensemble ñu nekk ay partenaires yu ki yore pouvoir bi depuis mairie Dakar ak léegi ñi fa daan nekk ñoo mouvance présidentielle ñoo daan ànd politique ñoom Mamadou Diop seen seen seen mbokk sa nijaay sa mbokk ñoom Papa Diop ba ci moom mii ca njëlbeen ah dañu àndoon ak pouvoir wala kii incarner lu pouvoir président de la République wante aussi ci suñu jàngat en tant qu'homme politique dañoo war di am ngor gu toll nii situation particulière nouvelle bu amee ñu am ngor ak responsabilité xool dëgg bi exactement fan la nekk en réalité le maire actuel ci gestion caisse d'avance bi lii laa fi fekkoon mënut a nekk lay c'est dommage que nu soyons parce que nag aussi mënuñoo noppi dafa am ay moment yoo xam ne fokk nit ki wax mënuñoo noppi et la meilleure attitude c'était benn boo defee li nga xam ne lii du yoon il faut plaider coupable ngor ak dignité ak diine dafa waroon normalement pousser nit ki plaide coupable ne lii de ay la yéwén. yaa ngi dégg mu ne kii di xalifa Sall fekk ñëwul ci APR dinañ ko taxal ci dinañ ko tëj ñun Sénégal askan wi yëpp xam nañ fi ñu mujj xalifa Sall taxal nañ ko tëj nañ ko ndaxte envoyé nañ ko IGE. suñu vidéo yu mujj yi waxoon nañ leen IGE ban njariñ la am ak lan lay liggéey ak ci soldu kenn la nekk ak kan moo koy wax defal mu def bàyyil mu bàyyi donc ñu gis ne c'est des gens yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp pouvoir bi am na habitude di leen waxloo ci li nga xamante ni moom la bëgg a def ñoom ñaar daleen leen koy waxloo da leen di waxloo loo xamante ni bu bëggee def dara ñun dañ leen koy waxloo xam nga. Euh, Ablaye Wade ak Macky Sall encore une fois ñu ñëwaat ci le fait que wax waxeet jooju noonu ñoom ñaar ñëpp dañuy yaakaaroon ne dinañ doyal ci nguur dañuy yaakaaroon ne dinañ bàyyi nguur gis nga Ablaye Wade bu ko wóoroon ne moom 2012 du fekk mu doyal du wax wax jooju Macky Sall wax ji muy wax te dinañ leen ko déggal Macky Sall wax ji mu wax. ne rakk bu ñaari rakka la rakka bu njëkk bi juróom ñaari kàbbar la rakka bu bu ci topp ñaareelu kàbbar ñaar rakka bu mujj bi juróomi kàbbar loolu noonu bu ko wóoroon ne ko ñaari yoon Macky Sall il a dit redit loolu maki Sall troisième mandat xam naa nag moo ngi ci xelam xam naa ne mu ngi ci xelam waaye xam nga tubaab nee na les les les mêmes causes engendrent toujours les mêmes effets gis nga li dàq Ablaye Wade du fi bàyyi Macky li Ablaye Wade jéem antuwul Macky su ko jéemee tamit du antu ñoom nag dañoo xam ne li ñuy def li ñu ko li ko mën parce que askan wi dafa am ay wax yoo xamante ni gis nga àdduna dama leen di dégtal waxu Mbaye Ndiaye entre deux tours yi Mbaye Ndiaye mii nga xam ne moo ne woon mankat moo ne Macky Sall benn benn mandat la defagul ci constitution bi léegi nañ ko déglu Mbaye Ndiaye pour wan leen ñi ay nafiq yu ngand ay nafiq yoo xam ne kuy wër nafiq ba gis ci ni jàppal nañu déglu Mbaye Ndiaye li mu wax ci constitution bi Ablaye Wade bi ko ba mu ko naree changé ak li mu wax ci denc alalu askan wi yaxanal alalu askan wi ba képp ki nga xamante ni war nga cee am dërëm wala dara askan wi mën ci am li mu ci yaakaar Mbaye Ndiaye moo waxoon lii moom moo ko waxoon ci benn émission Pape Alé Niang nañu déglu mbay Ndiaye. donc Abdoulaye Wade non yaa ngi retaan mais lii ma la wax lu dëggu la gis nga la constitution de 2001 bu nekkutoon porox ndal bi ñu utiliser pour soowe ko. ne ko rek sa mandat bi nga xam ne ñaari ñaari terme la am. Mhm. la durée du mandat et le le nombre de mandats benn rek lañ ci jël ne ko bii may nañ la nga prolonger au lieu que nga def cinq ans de la nouvelle constitution. Mhm. may lañ la comme la constitution de deux mille deux mille euh, neuf cent soixante-trois nga continuer sept ans yi nga. alors c'est la seule euh, réserve. tout le reste lui est applicable. alors donc ma joxaale sur la séparation des pouvoirs. waaw après ñu nga jëlaale. sur la séparation nette pour des pouvoirs. je comprends il n'est pas spécialiste. des questions de droit mais la xam na. la le contenu des des lois et règlements. mën nañ ci jëlee njariñ. maanaam mbir mi noonu la tëddee. waaw dégg ngeen Mbaye Ndiaye li mu wax ci Abdoulaye Wade mu wax ci l'impossibilité pour Abdoulaye Wade de se présenter. à l'élection présidentielle de 2012 dégg ngeen lecture bi mu def parce que euh, je vous rappelle en 2000 Ablaye Wade bi mu falo dafa changer la constitution mbay Ndiaye loolu lay leeral nee na 2001 législateur bi dafa ut porox ndoll porox ndoll boobu mooy mandat Abdoulaye Wade bi débuté woon en 2000 boobu mooy continuer ba 2007 mu doon mandat wu sept ans mais loolu dañ koy comptabiliser loolu la bëgg wax dañ koy comptabiliser mu amaat beneen mandat en 2007 bu cinq ans muy deux mandats maanaam renouvelable une seule fois loolu leer na nañ ñu leer léegi ñu ñëw ci Mbaye Ndiaye li mu wax bërki démb ci faram fàcc bi ko Papa ngañ invité je vous rappelle que li mu njëkk a wax moo ko waxoon ci 2012 entre deux tours moom mu waxoon ko débat wu ci débat bu Pape Alé Niang organisé woon moom moo waxaat lii ci Papa Ngagne moo wax moo waxoon li ci Papa ci papp Alé moo waxaat lii ci Papa Ngagne ñu déglu li mu wax barki démb ngeen xool naa fekk dëgg-dëgg ni muy waxee. léegi nga baal ma donc loolu ñu résumer chapitre mandat bi s'il baal ma ñu résumer indi woon c'est important léegi baal ma ñu résumer chapitre mandat bi daal di mën a dugg ci leneen parce que c'est important ñu résumer ko pour ñi ñuy déglu xam lan moo ci sa xalaat ci mandat bi mm-hmm. bu ma la déggee euh, ci li nga wax da nga bëgg wax ni kon mandat juróom-ñaari at ñi nga xam ne njëkk na ko def de 2012 à 2019. kon bokkul ci mandat yi bu ñu sukkandikoo ci. constitution bi parce que loi bi biñ koy loolu a wax parce que bi ñuy voté loi constitutionnelle pour la limitation des mandats à deux et de leur durée à cinq ans chaque chaque chaque mandat boobu mu ngi ci mandat sept an d'accord or li ñu def ci mandat sept ans mënut a rétroagir. mënut a gestu ca ginnaaw. Mhm. pour commencer ca loo xam ne booba loi bi taxawagul loi bu taxawee. Mhm. ñu ngi koy comptabiliser à partir de fiñ ko wote jëm ca kanam wante du deltu ginnaaw or bu jëmee ci kanam mandat bii mu commencé de cinq ci boobu mandat la compte compte bi di commencé. d'accord léegi monsieur le ministre kon nga tegaat ci ne mandat bii mu nekk nii ñu fal ko ko en deux mille dix-neuf mooy premier mandat loolu nga wax. bu ñu sukkandiku ci mooy mandat par rapport ak limitation des mandats constitutionnellement. d'accord parce que la loi a été votée. Léegi, pendant léegi kon en euh, résumé pour ñu pour ñu comprendre bu ba leer mooy le bu ñu bu 2024 euh, président day dugg ci deuxième mandat. dafa dafay dafay dugg normalement ci période ku bu dee soxla na deuxième mandat dara terewu ko constitutionnellement dara terewu ko mu nekk candidat constitutionnellement d'accord voilà mais nag loolu demal la ne loolu eggaguñ fa man li ma intéressé en tant qu'homme politique accompagnant président Macky Sall et ayant de responsabilité étatique à ses côté ministre d'État mm-hmm. li ma soxal tey mooy mm-hmm. deuxième mandat bi ko Sénégalais yi jox liggéey pour sénégal yi am euh, quand même satisfaction ci ci ni mu niñ ko amee ci ma premier mandat sept ans bi <laughs> euh, jërëjëf euh, monsieur le ministre loolu leer na c'était important dégg ngeen mbay Ndiaye li mu waxoon démb ak li mu wax tey je vous rappelle li mu waxoon démb moo ngi ko waxoon ci Pape Alé Niang en 2012 li mu wax tey moo ko wax ci Papa ngañ en deux le troisième mandat mu am ñaari lecture yoo xamante ni bokkul bàyyilaat nag dafa am lu mu wax lu am solo bàyyilaat nee na soo bëggee xam gor xoolal ndax waxu démbam ak waxu tayam ute na bu dee utewul jàppal te xam ne gor dëgg nga ñu koy jànge que ne ci mbay njaay mii du gor waxul wax gor deful yëfu gor léegi dafa am lenn loo xamante ni daf ko laajoon ko débatteur le jour ji mu ne Bamba njaay mu ne ko li ma lay laaj mooy yéen Bamba Ndiaye mu ne ko Abdoulaye ci Abdoulaye Wade yéen diggante 2000 ak 2012 corps de contrôle yi am ana kan la épinglé yéen ngeen def ci li ci war je vous rappelle que Abdoulaye corps de contrôle yi bu dee ñu bëri ñoo xamante ni tamit yoon li ci waroon def defu ko ci li mu ci waroon def defu ko te ñu épinglé leen je vous rappelle que Sada Kan Sada Ndiaye Sada Ndiaye ci Abdoulaye Wade la la la bokkoon bi ñu ko épinglé le procureur dafa instruire le dossier ñu jàpp ko xool lijjanti ko ndax alalu askan wi ba tëj ko ci alalu askan wi daf ko luubal wala lim fu mu war a jaar jaaru ko jaaru fa léegi Mbaye Ndiaye man ma lay wax yaa waxoon wax ji en 2012 yow question bi posé waat naa la ko corps de contrôle yi bokk na à APR gestion ñu bëri ñu nekk APR lu ko ñu corps de contrôle épinglé wax ma kan la ci yoon def li mu war a def kan moo ci ñam même bu dee benn fanu kaso wax ma kan la léegi yow yaa laajoon lii nañ la déglu ba pare man laajaat la laaj bi delloo la laaj bi nañ ko déglu te ñëwaat. attends ah, yaa ma dogoon. mais fa ma jëmoon. waaw ci benn sa question. question la bu gàtt nag mooy li muy wax nii ne Sénégal amul transparent amul dara. ban date la tàmbali. très bien. Euh, est-ce que de 2000 à 2008 day xamante ne yéen. ban date la leer la ba xam ñoom ñi ngi woon ci biir. Uh-huh. dañu ne jamono jooju yëpp. ñoom dañoo nekkoon ci yu lëndëm dañ doon jalgati mbay oui ou non pour permettre aussi parce que y a des Sénégalais qui m'ont appelé pour poser certaines pour certaines pour certaines questions c'est bien on reçoit l'information donc euh, permettre leen aussi ñu poser certaines questions allez-y mbay dama koy poser rek benn question Sénégalais yi ñoo ma koy envoyé d'ailleurs mhm. sama conscience euh, loi yi nga wax ne am na ci réew mi pour la répression de l'enrichissement et de la concussion. dégg dama ne. xam nga moom moo ko fi wax. ne ne loi PS. benn loi sur l'enrichissement illicite rek lañu fi def. Mhm. te benn kenn lañ ci jugé. waaw est-ce que moom mën na jox. Sénégal déglu rek xaaral mu continuer s'il vous plaît. Uh-huh. pléthore de loi yi nga fi wax. sur les marchés. non les organes organes yi mu wax. sur les marchés. Mhm. sur les contrôles, le suivi et la, la, la, la, la répression de l'enrichissement illicite sous quelque forme que ce soit te tey am fi est-ce que mën nga jox sénégale yi un seul exemple oui boo xamante ne bii loi yooyu fi nekk am na ku ñu répressionné première question dégg nga de mu leeral ci Sénégal yi moom la ñuy xaar nee nañ. ndax am na benn Sénégalais boo xam ne dafa am lu mu jalgati ñu luwaa tegu ci kawam ba mu nekk un exemple un modèle comme ni mu ko fàttalikoo ci régime socialiste loolu laa koy laaj est-ce que am na deuxièmement loi sur la régulation régularisation des de de de des, des marchés publics euh, bi président la République gàcce ngaalaama dafa defee ba loolu yëpp taxaw lu tax mu jukki lu yi nga xam ne doomam Karim moom moo ko yore pour le compte de l'énergie au Sénégal lu tax moom kese la jukki donc man ñaari question yooyu laa bëgg nga leeral Sénégal maintenant bi nga ma wax da nga posé benn question non bu la neexee nga tontu man je continue dama na ne da ma posé question kañ lañu ñu commencé. di xam à partir de quel moment la Ablaye Wade di dévier par rapport ak li taxoon ñu ànd ak moom mooy bi mu commencé di di jaawatle di jaawatle l'équilibre des pouvoirs à travers ses exigences doomam doomam. Mmh. république amul doom amul ndey amul baay ay citoyen la am tey dañuy ñëw ak ci li nga xamante ni journaliste yi moom la ñuy tuddee fact checking fact checking mooy li nga xam ne moom la en langage courant ñu naan vaar vaar maanaam li nga waxoon kat dinañ ko seetaat loolu la journaliste yi tuddee en langage journalistique ñu naan ko fact checking fact checking maanaam kat saytu li nga xamante ni li nga waxoon la wala lii dëgg la wala du dëgg pour lutter contre les fake news ñun dañuy wax ne lépp jàngat la laaj gis nga dañuy déglu ci troisième mandat bi dañuy déglu déclaration yi nga xamante ni Macky Sall def na ko ci ci troisième mandat Macky Sall li mu ci def benn pour wane ne moom mënul doon candidat jeexal na nañu déglu Macky Sall buñ ci déglu buñ ci jugee ñu déglu Ismaïla Madior li mu wax ci troisième mandat wu Macky impossibilité bi buñ ci jugee dinañ leen dégtal waxu waxu waxu ñi nga xamante ni ci sujet bi waxtaan nañ ci nga xool bu baax a baax a baax fi dëgg gi féete ak fu fen féete mën ngeen a wax loo xam ne amul waaye li ngeen waxoon ba pare lii yéen a ko waxoon te dugguñu sax ci lecture juridique parce que lecture juridique def nañ ko ci benn vidéo bi wax la je pense lecture juridique ñi nga xam ne bëgg nañ ci am lecture juridique Ismaïla Madior l'a bien expliqué gis nga ñeneen ñi ay juriste lañ ak yooyu dañuy wax dara amu ci Ismaïla Madior bii nga xamante ne Macky Sall la mu lañ tuddoon le tailleur de Macky Sall déglu daf ko wax mu leer nañ loolu constitution bi li mu ci wax ñëpp mën nañ ko liir nit ñi dégg nañ tubaab mën nañ ko liir xam bu baax li mu wax nul ne peut faire plus de deux de deux mandats consécutifs, y compris Macky Sall. léegi nañ leen ñu ñëwaat. Vous savez, euh, la constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 la Constitution dit le président la République est pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. de deux mandats consécutifs. Je la phrase une troisième fois. Nul ne exercer plus de deux mandats consécutifs. waaw gis que lii la Ismaïla Madior Fall wax ci troisième mandat je vous rappelle que Ismaïla Madior Fall bokk na ci ñi Macky Sall waxoon pour ñu bind constitution bi la nouvelle constitution Macky Sall moo joxe woon directive à ce que ñu proposé ko benn nouvelle constitution Ismaïla Madior Fall léegi dafa am loo xamante ni loolu ñuy jàng droit xam nañ ko xam nga suñuy bind une loi une loi bu ñu ko bindee ba pare bu ñu koy interpréter l'interprétation des lois bi ci jëkk mooy lan la volonté du législateur la volonté du législateur la volonté du législateur mooy lan mooy ki nga xamante ni da doon bind constitution bi constitution bu koy bind lan moo taxoon ñu koy bind pour interpréter une loi lan moo taxoon ñu ko bind lan moo ko taxoon a jóg lan moo nekkoon mébétam te on voit nettement que fii li taxoon loi bi jóg la c'est la constitution li taxoon mu jóg du lenn lu dul limite le nombre de mandats di président de la république donc amat mënul amaat beneen interprétation te loolu dafa leer nañ Ismaïla Madior Fall bii nii nga xamante ni defal na mag Macky lu nekk waxal na ko lu nekk yow moom moo wax lii mu leer nañ moom li nga xamante ni moom la Macky Sall waxoon nañ ko proposer constitution nañ ko bindal wax ko li mu bëgg moom moo ko leeral fii nee na. yaa ngi leen di dégg répétition bi nul ne peut fair plus de deux mandats consécutifs nul ne peut faire gis nga loolu dafa leer waxul nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs la ñu wax waxuñu plus de deux mandats de de cinq ans ou bien plus de deux mandats de sept ans lii moo leer nañ lii la ci Ismaïla Madior Fall waaye Ismaïla Madior sax mën na leen bañ a dox ñu déglu ndeyu mbind mi maanaam Macky Sall mu wax lu leer nañ nañ nañ nañ wolof la li may wax nañ ko déglu te ñëwaat. fan yii dégg naa ay coow mooy loo xam ne daf ma jaaxal sax ndax day mel ne lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax jóg. ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man maa proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle boo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa war a jeex dàkk ñëpp jàpp ne réew mi kenn mënatu fi toog lu ëpp ñaari mandat dañ ko bind mu leer nañ nul ne peut faire plus de deux mandats xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment euh, référendum mille 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj mais de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee deux mille dix neuf lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg senegal yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu deux mille dix su boobaa man pare naa ci loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey waaye li ma xaw a jaaxal nag ci réew mi mooy. foo nekk ci liggéey rek dinañ la indil wax joo xam ne boo moytuwul boo leen ci toppee dina la tardeel te jaru ko kon fi ma toll li ma li ma bëgg a def daal mooy continuer liggéey bi nga xam ne yéen a ma ko dënk su paree ñu seet boo leen ñu wóoluwaatee am ngeen possibilité renouveler mandat président de la république su boobaa wax ji jeex na maa keneen lañu ñu wax ndax mënoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle waaye nag intellectuel yi dañu bëgg loolu jàpp fii interprété fële ku nekk wane xam-xam ku nekk wane na yow yaa mën a indi lii ak laa loolu yëpp lu baax. je pense euh, waxu Macky Sall bi mu waroon tëj débat bi mu waroon tëj coow troisième mandat bi mais yaa ñoo xamante ni seen inter rek moo leen tax jóg. ñu nekk ci pouvoir bi bu ñu sañoon Macky Sall day continuer ba deux mille trente te wax nañu ko wax nañu ko bettuñu ñu nee nañu Macky Sall continuer ba deux mille trente donc nga jàng ci nga jàpp ci ne seen waxu démb mooy c'est votre fardeau seen waxu démb mooy seen. li ngeen yanu nga xamante ni mënoo leen ko yennee ko loolu noonu wax jaa ngi fi tege comme bakken ci kanam du dañ léegi wax jaa ngi noonu je xam ngeen Boun Abdallah Dionne mooy kan xam ngeen mbay njaay mooy kan léegi sénégalais yi nag ñoom li leen war xam nañ ko li leen war moom du leen leen nit di waxati xam nañ ko mu leer nañ coow li nag je pense leer na xam ngeen à partir de vidéo yi kan mooy Mbaye Ndiaye xam ngeen Boun Abdallah Dionne mooy kan donc ñu leen loolu lañ amoon ci leeral lu leen bëggoon leeral di lu su fekkee am na wax joo xamante ni ñagas na di wax ne ñun dara taxu ñu jóg lu dul Sénégal gi nga xam ne ñoo ko bokk mënuñu ko xaaj ku nekk dem ñu teg ko ci loxo yu wóor ñu waxante dëgg te xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk léegi nag duñu bàyyi yàqkat mu koy yàq duñu bàyyi naaféq mu ñëw wax démb lii tey mu wax lii loolu rek kat waral ñuy def vidéo bi dinañ encore une fois dinañ ci dinañ ci dinañ ci góorgóorlu di ko def le plus souvent possible c'est vrai que ñi koy demandé bëri na trop à chaque fois donc euh, chronique yi kañ la chronique yi kañ la mais dinañ ci góor góorgóorlu c'est vrai que en fait périodicité bi dafa dafa dafa xaw a xaw a xaw a tege tembe mais dinañ ci góorgóorlu ba nga xamante ni jàngat boo xamante ni def nañ ko euh, gëstu boo xam ne def nañ ko ñu indi leen ko jërëjëf jërëjëf Sénégal